ay manipulation yu grossière laa mënut a ànd ci au nom du principe que dama bañ kii dama bëgg mu jóge fii man ku toog baax na mais toogalal Sénégal. Mhm, c'est important. mais nag doo bëgg toog di violer man li nga xam ne moom laa am de plus cher mooy suñu charte fondamentale. Mhm. et bëgg a taal réew mi au nom du fait que le président a repoussé un calendrier électoral comme si président dafa leen dafa bëgg toog dafa yokkal boppam fan la yokkale boppam un an bu doon yokkal boppam wax ni cinq wala deux ans sax ak lu muy doylu yokkal boppam quelques mois foowaat mel ni koo xam ne daa woon a toxu am problème bu euh, kii. mais est-ce que yaakaar nga aussi le 15 décembre bi nga xamante ni moom lañ jàpp aussi tamit buñ ci tolloo. maanaam dina mën sa am parce que est-ce que uh-huh. euh, le matériel qu'il dina dina le matériel électoral il me semble que dégg naa Aliou Ngouye Ndiaye di wax ni moom. Uh-huh. en trois mois on peut réaliser des élections on peut organiser des élections en trois mois. Uh-huh. ci waxam bu ko waxee xam nga opposant la. bu ko waxee je le crois parce que il était ministre de l' euh, am na temps moom moo organiser élection mos na organiser élection. Hmm. yàgg na ci mbir yi. mais man bu ma doon présent Macky Sall xam nga man tam damaa ñëwee lu métti du ma. Hmm. fixé 15 décembre. mais ndeysaan moom moo ëpp moom c' est le père de la nation. Hmm. il faut qu'il ménage lu ñu wax euh, le chou. mais parce que enquête enquête yu nga xamante ni moom moo war a leer. wa man je pense que war na ëpp fii ba décembre dafa bëri. parce que déjà conseil constitutionnel ñu ngi leen di xaar parce que li nga xamante ne teg nañ ko seen dara aussi itam loolu faaw ñoom tamit ñu loolu leer ci bopp sénégalais ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ne mi ngi fii yaakaar nga boobu euh, loolu yëpp mën na fi leer avant décembre. man euh, je ne connais pas trop bien ñoom seen i prérogatives. Mhm. mais ñoom report bi ñoom ñoo ci ëpp intérêt. ñaan ci waa conseil constitutionnel parce que dañu leen dut baaraamu tuuma mais di ay tuuma yu xam ni. dafay entacher seen carrière seen carrière euh, en tant que commis de l'État serviteur de l'État mm-hmm. léegi yow accusation yooyu boo defee yow sa carrière ba nekk en fin de carrière ñu jiiñ la ay actes yu liés à la corruption yu grave nii yu impacté la vie de la nation à ce point est-ce que waroo def sa kéemtu lay kattan pour nga setal sa der nga jàppale président bi ci li mu bëgg pousse élection yi def ay enquête pour que yow sa der booy dem sa doom yi bañ a taseeg nit ñu mbedd ñu naan leen sa papa c'est un truand la escroc la wala sa papa moo moo moo jaay élection yi passé mm-hmm. sa papa dañ ko jox koppar mu jàllale ay candidat loolu je pense que ñoom war nañu am intérêt à ce que ñu jàppale le président Macky Sall et qu'il y ait ce travail ces enquêtes là et ce travail préalable pour que ki nga xam ne suba euh, processus bi ñu def ko mu jaar yoon même bu dee dañuy perte un peu de temps même bu dee dañuy def benn écorche dañuy xaw a xosi. Mm-hmm. mais est-ce que jàpp nga ni conseil constitutionnel. dañu nangu lu nga visage bu liis bi. Mm-hmm. république bi amoon. Mm-hmm. mais au moins écorche boobu dina permettre ñu gën a dëgëral taxawaayu république bi mais bu fekkee dañoo continuer daal di fal président boo xam ne chacun des candidats. mën na contester légitime euh, légitimité mhm. je pense que ça pose des problèmes dès l'entame et dëkk bi day nekk ci ay yëngu-yëngu processus bi yëpp day nekk li moom li muy jiite réew mi yëpp mhm. mën na il peut s'attendre à ce que dès le premier jour mhm. de son exercice dina am ay marche comme moom ni mu ko doon defee bu dee ku nekk opposition la dina am ay marche dina am encore ñii itam ils ont yàgg nañ ci opposition waa PDS par exemple ils ont les moyens de rendre ce pays aussi ingouvernable pour qui que ce soit buñ ko bëggee ñoom waa PDS. ah bon ah mais yow tamit Abdoulaye Wade 26 ans d'opposition ñëpp a xam ko. Mhm. yàgg yëngal gësam dëkk bi tëye ko waaye xam di di di di obliger le l'état euh, le gouvernement le grand Abdou Diouf à négocier bu ko bëggoon tey doyu ko doyu ko xëy bu ko Abdoulaye Wade bëggee maanaam moom doomam ji. mais mais mais ñoom ñoom ñoo accusé ñoom ñoo accusé tam ni Amadou Ba euh, loxoom mu ngi ci affaire euh, corruption boobu boppam moom déjà moom Amadou Ba moom tam dafa war a génn. voilà na commission bi taxawal lii ñu setal sama del parce que du ma nangoo nekk un un président par défaut. Mhm. moom Amadou Ba man de bu doon man loolu lay def président par défaut ko nekk. donc na lépp leer. mais est-ce que soo amoo moom. non waxu ci moom moom il faut mu am moom amul lu mën a tere moom. tu vois daa wax comme opposition. parce que tax na ñu wax naan amaat dafa mel ni ñu koy ñu koy jiiñ te muy soccoo yeelul léegi <laughs> Amadou Ba moom tamit nee naa critique na de. ni moom war na génn président man xam naa ne nekk naa opposition déjà. te falaguñ ko. <laughs> ah bon. ko defar <laughs> man moom lii mu def ba mu génnee lendemain ba. Mhm. woo tubaabam yooyu tubaab bi jël ko. papa tubaabam yooyu tegal ko émission sur mesure mu naan ay gisuma fi lu tax ñu reposé ma ne kii moom daa mel ni li ñu koy wax gémmiñ gi nit na de <laughs> kii bu ñu ko ay mbiram doy na waaw parce que yow bu ñu la. mais mais bu fekkee bu fekkee dañ ko jiñ aussi ñoom ñi mu àndal. nga setal sa ñoom ñi ñoom waa biir APR nga xamante ni ñu ngi ko koy jiñ loolu amul yaakaar naa wax nañu ah, <laughs> ko assemblée nationale pleine wax nañu assemblée publiquement <laughs> ñu ne waa PDS Ba amul. et que gis nañ aussi président Macky Sall sortie bi nga xamante ni def na ko nee mooy candidat am est-ce foofu tamit amul leen loo xamante ni tey xel sama genre yi mhm. mhm. lii ay xel may def <laughs> su ma leen dégloo yow <laughs> non on ils parce que mhm. <laughs> xam nga lu tax may ñoo xam seeti da ngay xam ne ñii ku ci nekk li muy wax gëmu ko waaye quand même ku ci nekk yaa ngi wax rek yaa ngi fobbin sama yaay loolu fobbin la ko wooyee xaw mm-hmm. ndax séeréer la xaw ndax euh, wolof la. Mm-hmm. maanaam je me rappelle boo ma amoon difficulté à fair quelque chose attends je vais être quand même mm-hmm. à faire une tâche euh, relation bu difficile et tout ça daf may ne mun nga yendu di dëbb laalo toute la journée te du mokk. <laughs> il faut savoir comment <laughs> ngay ngay dëbbee laalo bi rek tu vois mais est tamit yooyu tamit lu tax opposition bi tamit xalaatee. beneen sens ñoom li wax nii man gëmuma ko. dans tous les temps c'est un langage diplomatique c'est un langage politicien. Mm-hmm. mais man pour man dama leen damay toog leen seetaan ba pënd bi wuuy ma choisir camp may jàppale. parce que instant bi yow acrobatie yi ñuy yi <laughs> ñuy ma ngi nii wax naa la ne Amadou Ba bu nekk président premier jour maa ngi opposition. mais mooy sa candidat ba tey. sama candidat man bokkuma Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba c'est pas mon candidat. mais yaa ngi jàppale Macky Sall aussi tam ci bëgg nee nga muy doxalee président Macky Sall dama ko jàppale ndax Sénégal dafa doon servir moom il était le mieux le Sénégal. Mm-hmm, mm-hmm. ma jàppale ko parce que li ma gis loolu tax li ma gis. mais mais mais Françoise mënoo mënoo bañ a bokk benn bokk yaakaar. bokk bokk benn bokk yaakaar di nga nekk opposant. Macky Sall laay jàppale. mais kon yaa ngi biir bennoo. bokkuma bennoo. ah mais bu fekkee mais Macky Sall mooy Benno quand même. non non non non euh, c'est soit nga nga nga Benno c'est un wala nga far opposition. Benno c'est un de mm-hmm. politiciens de partis politiques man duma politicien président Macky Sall dafa tollu benn moment T de l'histoire du mm-hmm. Sénégal il représentait celui qui défendait le mieux. Mm-hmm. celui qui garantissait la paix du pays. la stabilité du Sénégal et la préservation de nos acquis ci loolu la ko jàppale. moment bii nii. Hmm. Amadou Ba joxuma garantie yooyu ba mu mën a tax ni man damay jàppale Amadou Ba. loolu daa xamul ma ko choix man man man xaw ma lu tax ñu choisir ko je pense que parce que moom moo fa sës parce que président Macky Sall doyal na ci ci. mais amoon na ñeneen en fait. Euh, avant ñuy génn. man daal xam naa ni daal. mooy hmm. candidat wu président Macky mooy candidat Benno. Hmm. mooy candidat APR. mais man du sama candidat. ok na dinaa gën a xool gën a étudier candidat yi. Mhm. bu ñu battre waatee carte yi. Mhm. ma tànn benn candidat xeexal ko comme ni ma xeexalee président Macky Sall comme ni ma doon xeexalee sa Seck. Mhm, ku ma jàppale xam naa ne dinaa la indil mbooloo dinaa la tëyal réseaux sociaux yi ba kenn du la ko xottal. waaw ah, réseaux sociaux yi am nga ci doole moom waaw. kenn du la xoxotal di nga wax di dox di nga fël-fëlaale mm-hmm. dinga def lu la neex kenn du taxaw say xef ne la doo ko fi waxee mm-hmm, mm-hmm. comprendre nga man dama lay jàppale vingt quatre heures sur vingt quatre ci lépp nag tànk yaa ngi teg sa tànk ci dëgg ak ci njëriñ Sénégal Amadou Ba xawuma ko ba koy defal mënuma la wax ban genre nit la parce que je pas d'émotion sur son visage wax naa ko xam nga intelligence artificielle àll mhm. xam ni day mel ni amul xol amul kii mais cerveau bi mooy doxal man affaire boobu dama ko ragal mhm. <laughs> man dama ko ragal xaw ma je mhm. xamuma ko gisuma ko muy wax kii lu nekkul loo xam ne dafa mel dañ ko chronométrer dañ ko programmer man kooku na koy jàppale man je veux quelqu'un qui reflète des émotions benn euh, empathie benn euh, you know un mm-hmm. relationnel mm-hmm. mais pour servir il faut qu'il y ait un lien mais je n'ai aucun lien avec Amadou Ba ba koy jàppale président Macky Sall lien li ma lien bi may wax c'est au-delà de lien nga xamante ni comme yow ni ma la xamee nii ñu toog mm-hmm. mais c'est quelque chose benn est-ce que xam mën naa xaw ma nan laa koy expliquer mu mel ni yow man nit laa toogal quoi mais boo taxawee di wax mu mel ni benn comme robot. kon yow daal sant yow Amadou Ba daal mu nekk mu jiite tout est millimétré on t'a dit lii nga war a wax. Mm-hmm. lii nga war a def nii nga ko war a defee yow da ngay dem pouvoir tout de suite. Mm-hmm. bu fekkee ni le facteur humain boole ko ci man mënuma nekk ak yow gisuma ko mu boole ci le facteur humain humaniste humanitaire sénégalais noo euh, noo noo nit ay garabu nit. Mm-hmm. ñun loolu la ñu yare nit mooy garabu nit. président Macky Sall ba mu nekk candidat waxoon naa ko Benoît Sambou. Mhm. dama ko doon ne man damay am du mal à l'attaquer parce que damay am impression que je avec un grand frère. Mhm. mais je suis pas avec vous effectivement nekk moo nag affaire mais ba mu demee deuxième tour dama dama ko xeexal wàcc ci bi xeexal ko pour mu gagner pour alternance. boobu non nekk mosuma bokk affaire. mais aussi ba ma ñëwaatee gis ko mu nekk ñëw def ay chantier affaire yi muy doxal. ma ne non kii dañ ko war a jàppale ma ñëw naturel ma su may wax ci moom sama xol lay waxee parce que man aussi mu mënu may waxee fii mhm. man c'est ça mon défaut mënu may jël lii jiital ko man fii lay demee parce que su ma lu ma sentir fii ba xeex ko rek dama ko dama ci am ndam mhm. voilà donc lépp lu ma sentir lu ma lépp loo ma gis ma xeex fii la juddoo dans le kër mhm. feeling la sensation la yëg-yëg la donc damay am élément yi damay sant damay am inspiration. Mhm, waaye bu dee fii da ngay paan parce que. Mhm. <laughs> parce que yàlla loolu mayu ko doomu aadama nga mhm. nekk ci lii te doo def ay erreur yu grave. yu am conséquences yu assez euh, dommageable pour euh, ñi ngay àndal wala yow sa bopp wala sa askan.